xam ni kon kër Seydi Hadji Malick këru yàlla la ku yàlla soxla ci yow dara dana la fa dëkkal di ndokkeel jullit yëpp ci at mu bees mii tàbbi ndokkeel ci Sénégal yëpp ndokkeel ci jaamu yàlla yëpp ndax boo nee jullit yëpp am nga ñoo génne te ñi nga génne la ñu nekk yàlla la soob la soob yàlla seen diggante ak ñoom nag sa yoon nekku ci booy yàlla rek boole leen ci ndax waghfir lanaa wa liman min baynina nasabun min jihati diini aw fi diini si laaj ma rek bàyyiwul kenn te ñaari mbokk yooyu rek la am ah loolu kon ñi nga xam ni dañu nangul yàlla alhamdulillah ñi gàntu itam ñu bàyyi leen ak seen borom te bañ ci dugg suñu yoon waaye li ñuy ñaan yàlla rek ñu boole leen ci naan jabootam bi ñi jiitu ci ndokkeel boobu ci at mu bees mi mooy suñu kilifa yi yàlla boole mu di kilifa diine ñoo fi nekk ci suñu kanam bu ñu dugg si woon léegi ñun ñëpp daañu wàcc taw ci suuf di massawu coono ci yi nga xam ni yàlla la soog mu wàcce ko ñii di ko tuddee mbas ñii di tuddee feebar ñii di ko tuddee jàngoro def naa ni balaa daal mënoon nañ ci yem ni balaa la su ko defee kon ñi mu dal ñi ñaan yàlla yàlla leen ci yàlla génne ñi mu dalul yàlla leen ci yàlla musal ñi ci génne àddina yàlla na leen yàlla yërëm te jëlee ko fi musal ñu ci yàlla jëflanteeg ñun ci yërmandeem ak mbaaxam ci daraja yonent bi te bañ a seet ñun ni ñu mel ndax ñooñu jekku nañ ñu ba noppi massawu coono yi ci ñi nga xam ni yàlla wàcce na fi ndox ndox bu wàccee ñu jàmbat bu wàccul ñu jàmbat benn jaamu yàlla ñeeni moo bindoo noonu ndox mi nag yàlla na gën a wàcc gën a bare jagal lépp te bañ a yàq dara kenn bañ ci yàqu kenn bañ ci yàqule yàlla nañ ko ci yàlla defal mu nekk ndoxum barke ndoxum jàmm di beral nag ni képp koo xam ne yaa ngi askanoo ci seen arrangement yi képp kuy ci moom ci mbokk ak nu mbokk mën a tuddee ñu ngi yëkkati kàddu di ko jëme ci loo xam ni yittee kër Seydi El Hadji Malick muy jumaa jële ci Tiwaawan taxaw fa taxawaay bu yàgg taxawaay bu yàgg nag parce que Seydi tabax na loolu bu benn jumaa lu ne def na ko kon jamono jumaa jooju su taxawee euh, kenn àggalewu ko ñu fekkee ni yàlla la soob li ni lu jot yomb yal nañ ko yàlla yombalal ba ñun ñëpp ñu fekkee ko julli ji yal nañ yàlla defal liggéey bu rëy nag boo xam ni tuutiwul ci ñun waaye rëyu ci yàlla ñuy sant nag képp koo xam ni toog nga wéet xalaat jumaa ji jàng benn faatiha ni yal na ko yàlla àggale te ñu fekke ko ñu ngi ñu ngi sant ba ca kooku ndax wala dafay wax ni doom bu sant sant la bokk te li Fatiha mën def ci liggéeyu yàlla dara mënu ko def ci liggéeyu yàlla ñuy yëkkati nag ziyaara ak nuyoo jëme ko ci njabootu Cheikh na Ahmad Tidiane eh, Cheikh Abdul Muttalib ñu ko koy yëgal ñu ko koy yëgal eh, moom war na ko yëg war na ci bokk ndax Abdul Muttalib ci kër gii la xaleele ba màgg ba bàyyam génn àddina kon kenn waru ko ci jiitu te mooy setu Cheikh nag yëkkati nag ziyaara ak nuyoo jëme ko ci Thierno Bachir Tall mu di xalifa Alaaji Omar Fuuti ca Cerno Madani Taal bu Cerno Muntaga Taal Serigne Muntaxa Mbàkke xalifa Serigne Touba Cheikh Abdoulaye Thiaw mi fi nekk tey di xalifa Laayeen yal na ko yàlla saafara Cheikh Ahmad Tijaan Ba ca Madina Gunaas moom it ñu ngi koy nuyu di leen liggéey bi foog li ñu ciy dégg fii lañ jóge ci kër Seydi Aliou Mané nuyu Xalifa Ahmed Tidiane Niass ca Léona Niassène yëgal ko ko yëgal ko Xalifa Alhaji Maye Niass ci Medina Baye Niass yëgal ko suñu dëkkandoo bi ñu dëkka muy Cheikh Bécaye Kounta ca Ndiassane di ko yëgali Cheikh Ousmane Ngom xalifa maam Alaaji Rawaan kooku daanaka mooy borom ndax maamam la woon ak Cheikh Ousmane di ko yëgal it di ko jotal nit nuyoo ci Serigne Mansour Sall Serigne Abbas di nuyu ak di ziar ak di jotal ci cernoom mu niru njëgën xalifa bu maam Ahmed Ndiaye ca Thiès di ak ginnaaw nuyu ak ziar xalifa Abdourahim Seck ca Canaba di ko yëgali sëñ Mansour Cissé ca Pire bu suñu bàyyi man Cissé Pire di ko yëgali sëriñ Maodo Maam Ndiaye Maam Ndiaye Cissé ca jaamal képp kuy kilifa daal bi ñu tudd sa turit ñu ngi la ko yëgal di la wax ni danañ ko commencé altine incha allah ci la ñuy démarrer jublu nag ci liggéey bi xamal nit ñi nga xam ni danañu gis jataay yi bu ñu ko gisee ñu xam ni ñii kat kenn raxu leen ñëpp jabootu kër Seydaaj ñëpp jabootu Seydaaj Maalik moo leen jabooteel mooy seen sëriñ mooy seen maam ca kër ga la ñu dëkk ci ay doomam rek fi nekk ki nga xam ni moo jiitu ci njaboot gi moo di alxaaji Malick si Maodo mi toog Serigne Mansour si Jamil mi ngi nii toog tey jii mooy xalifa Serigne Babacar mooy xalifa Serigne Moustapha mooy xalifa Serigne Alioune. man nag maa fi mag waaye terewul nag ma wàccee sama bopp incha allah ci barke maam muy lu dëggu ci man ay yaakaar yàlla ni yàlla bu ma am rek njureel ci seen jugement yi yàlla naa am ci moom ak taalibe bokk ci moom dëban ci nekk ndax nekk ci baax na waaye bokk ceeku gën yàlla nañu yàlla defal bopp boobu di gërëm ñëpp nag euh, di sant xale yi yëpp teew nañ ñëpp teew nañ ñëpp teew nañ bugguma tudd bàyyi ji waaye ñëpp teew nañ jataay bii nag yàlla bu mu fiyam yàlla bu mu nekk suñu mujj jataay yàlla nañ ci doxee defaru ba faawu defaru ci yàlla defaru ci àddina defaru ci suñu diggante yàlla nañ ko def lii mooy suñu taal lii mooy suñu force lii mooy suñu sag yàlla nañ ko yàlla saxalal ma beesalaat ni ndaw lu loon wax ci tur ay kilifaam wax ko ci seen tur wax ko àddina àddina xam ni kat yéen ne dajaloo jox ma seen kàddu ma waxal leen ay seen ndaw ay seen waaye waxuma tooguma toogaayu kilifa kilifa tooguma toogaayu kilifa waxatuma la xalifa bi ñuy wax xalifa bi teelu xalifa yi teelu taalibe yal na ma ko yàlla def. amiin am ci borom réew mi. ci borom réew mi. yëg na affaire bi. yëg na affaire bi. jiitu na ci sax. jiitu na ci sax. def na ci loxoom. def na ci loxoom. bu waxtoom jotee daañu ko wax. bu waxtoom jotee incha allahu taala dana ci wax. incha allah. incha allah. ko yàlla dimbalee. ilaahi.